mbokk yi ñu ngi leen di nuyu dal leen ak jàmm ci sport TV li gën a fës tey ci revue d' actualité bi ñu fas yéene ko waxtaanee bokk na ci championnat d' Afrique de judo ak journée bu njëkk bi nga xamante daal dinañ koy jongante ni ki démb bu weesoo loolu itam dinañ wax eh, ci lu jëm ci wàllum stade yi ak yenn infrastructure yi nga xamante eh, ministre Matarba Ba daal dinay annoncé eh, ni dinañ ko ubbi fi ak njeexitalu juin bi Slavia Prague xarante Abdallah Sima tax nañu daal di jël li nga xam te moo di coupe de la république tchèque yi diggante ak rëg-rëg seen face à face di waaj ñëw guy gi am na ay kàddu yoo xamante yëkkati na ko ci mi nga xam le ni day dem ba États-Unis ngir jàng fa boxe ndax bi le combat xeex dong la ciy laaj 42e édition championnat d'Afrique de judo tàmbali nañ ko niki Arena mu nekkoon journée bu Binghamante bi nga xamanté suñu gëndé ñi ci doon tagatu lu tollook juróom ben Pour nañ ci journée bi finalement amuñu ci euh, li nga xamanté kon euh, modi euh, médaille jàpp ni ci jongante lu tollu ak Fuku, ak juróom-ñetti dinañ ci édition bile lu tollook ñaari téeméer ak fanweer ñetti délégation ñoo nekk jamono gi xamante moo di Dakar tolluwaayu euh, fukk ak juróom-benni réew yu bàyyee ko fépp ci Afrique stade municipal bu Parcelles Assainies itam bu Yoff dinañ ko ubbi euh, fii ak njeexitalu juin bi bu ñu sukkandikoo ci kàddu euh, Matar Ba mi ngi xam ne li ni mel gannaaw bu mu jébbali drapeau national bi gaynde yi xam te ñoo nekk ci beach soccer jàpp na ni li ni mel dafay topp rek mbébétu njiital réew mi ci lu jëm ci wàllum infrastructure ndax jàpp nañ ni fépp fu ñu dem ci Sénégal war nañ faa mën am ay stade ngir mën faa tàggatoo jàpp mën a tax ñu daal di yombalal Sénégal candidature bi nga xam te bëgg na koo déposer ngir organiser coupe d'Afrique des nations tabax ak defaraat stade am na solo waaye entretien bi itam euh, point la boo xamante war nañ cee mën a taxaw ba tax Matar Ba siiwalee ni njiital réew mi daal dinay xamle ni euh, nañu recruter lu tolloog deux cent cinquante stade euh, ngir ñu mën a toppatoo yile infrastructure xarante Abdallah Sima daal dinay tax Slavia Prague daal di jël li nga xam te moo di juróom-benneelu coupe de la République tchèque ni démb kon la daal di dóor Victoria Pleasant ben bal ci dara bu ba ka dugal Kouissima euh, ci 73e euh, minute bi la daal di def euh, li ni mel gannaaw bu mu amé saison bo xamanté rafet na ak Slavia Prague Slavia Prague na jàppale ni jamono gi gannaaw bañ ko éliminé ci li nga xamanté modi Europa League dafa nam rek def doublé ci bir réewam gannaaw bu mu bi li coupe nationale fas yéene jël itam li nga xamanté modi championnat bi nak ba ñu ko ci classement bi rawee na ki top ci mom 14 points te ñi ngi nekk ci njeexitalu saison bi daanaka ñaari match kott moom moo ci des ngir ñu daal di boucler exercice bi. ñu wax ci lu jëm euh, Coupe de France ak record yi nga xamante gis nañ ni yenn ci suñu ay gaynde yi daal di nañ koy battre ku ci mel ni euh, Gana Gueye ak ki nga xamante moo di Abdou Diallo jàppale ni Boubacar Sarr Locotte moom mooy sénégalais bu njëkk bi nga xamante euh, moom moo jël Coupe de France ñett yoon ca Marseille atum 76 Paris Saint-Germain 82 jëlaat ko itam foofu 83 Gana Gueye gi moom it daal di lu tolloog eh, ñetti yoon ndax jëloon na ko atum 2011 ak Lille daaw mu jël ko ak Paris Saint-Germain ren itam Abdou Diallo moom it daal dinay égale eh, kooru eh, Badara Sène mi ko jëloon am atum 2007 ak 2009 ci Sochaux ak Guingamp Abdou Diallo ñaari yoon la ko jëlagum ak kii ji Paris Saint-Germain. le 29 août le guy gi ak rek rek fas yéene jàkkaarloo waaye lu jiitu loolu dinañ amal benn face à face ni ki dimanche bile guy gi nag daal dina yëkkati ay kàddu jëmale ko ci combat boobu xamle ni kon kii di Reug rek moom li mu wax dafa bëri ba tax na moom dafa fas yéene rek noppiloo eh, ki nga xam te moo di Reug Reug ndax kàddu yi nga xamante yëkkati na ko eh, moom dégg na ko bu baax xamal na ni ko eh, moo ko ëpp li nga xam te moo di mystique moo ko dàq xeex moo ko dàq boxe li ni mel nag moom guy gi na gis na ci saafara ndax dafay dem fi moo di États-Unis ngir jàngi fa boxe muy xamle ni moom nekk na koo xamante dafa bëgg boxe bàyyi gaawam sax daf koy fanaanoo États-Unis nag dina fa amal préparation wu deux mois waaye guy gi mi ngi xamle ni